sëriñ ngañ tàndine sëriñ ngañ tàndine mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1872 ci dëkk bu ñuy wax nag ngàddantu ngàddantu nag mi ngi ci suuf sii nag di kajoor ci dëkk boobu nag la feeñe jamono nag ci atum 1872 muy doomu soxna kuneel mar ak sëriñ siidi moxtaar tàndine moom sëriñ ngañ tàndine ne am na ñu mu bokkal nag soxna kuneel mar ak sëriñ siidi muxtaar tàndine ñu man caa ràññee na nag soxna faati maxtaar tàndine bintu soxna kuneel amar bintu sëriñ siidi muxtaar tàndine sëriñ ma jóob Kounel Amar ibnu sëriñ Sidi Muxtaar Tandine ak moom sëriñ Ngañ Tandine ibnu soxna Kounel Amar ibnu sëriñ Sidi Muxtaar Tandine ñaar nag la bokkal waajur wu góor nag ak waajur wu jigéen na ngir xamale leen nag gi mu bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen nag ñoom ñooy ñan soxna Faati Muxtaar Tandine guddul nag aw fan laataa muy dem kër nag la génn àdduna sëriñ ma Jóob Tandine benn bant nag bu jigéen nag la fi bàyyi muy ku ñuy wax nag soxna Faatuma Jóob soxna Faatuma Jóob mi moom meññi nag ku ñuy wax soxna Faati Ture nag bu ndànd moom sëriñ Ngañ Tandine nag bi mu matee dal alxuraanul karim waajuróom nag sëriñ siidi muxtaar tàndine nag moo ko dalal alxuraanul karima ginnaaw bi nag la ko waajuróom jël jébbal ko nag magam ji ñuy wax nag sëriñ moustapha tàndine ginnaaw magam sëriñ moustapha tàndine lañ ko jébbal nag rakku baayam buñ doon wax nag baay sayar tàndine mu wéel nag am njàngam ci loxoy baay sayar tàndine mii nag la mokkale alxuraanul karima ginnaaw bi nag bàyyi ko woon na fi nag dem nag ci sëriñ masamba jóob saama wéel nag am njàngam ginnaaw sëriñ masamba jóob saamitim bépp borom xam-xam bu mu dégg nag ci tundu kajoor woowu itam nag dem na fa wéyal nag am njàngam mu nekk nag ku géejoo géeju nag ci wàllum njàng ba ni seex Issa nag jaayanteeg Serigne Touba Seexul Xadiima bi seex Issa jenn nag jaayanteeg Serigne Touba Seexul Xadiima la ñëw nag jaayanteeg Cheikh Issa jenn bokk nag ci taalibeem yu njëkk yi ba tax na nag lépp loo xam ne ni Cheikh Issa Diène nag dund na ko nag ci wàllu jafe-jafe ci biim jaayanteeg Serigne Touba Seexul Xadiim moom Serigne Ngagne Tandine mii nag mook Cheikh Issa Diène nag ñoo ko ànd ba lépp na ko nag dégg na ko ba buñ masaa wax nag Cheikh Issa Diène lenn li ci moom mii nag lañ ko daa jaarale ndax daa nañ ko wax nag benn ràbb ak ñaari naar nag kum taxa damm nag sab gopp da nga ko réccu waaye nag Cheikh Issa Diène itam nag jàppoon na sëriñ ngañ tànni ne mi itam ngir sëriñ Touba Seexul Xadiima na itam nag ci jëwriñam yu mag yi ba bi mu génnee àdduna nag ci atum 1942 Cheikh Issa Diène itam nag moo ko jullee sàkku itam nag ñu denc ko nag ndànd Cheikh Issa Diène itam nag foboon na doomu sëriñ ngañ tànni ne itam nag dëkkoo ko foboon na itam nag ab sëtam muy sëriñ naar jenn jenn nag tudde ko sëriñ ngañ tàndine ba tax na nag naar jenn yi nag bari na lool nag ci ëttub Cheikh Issa Diène waaye sëriñ ngañ tàndine mii nag moo tax mu wéy ànd ak nag seex Issa Diène ci suuf soosu nag di kajoor bépp jafe-jafe boo xam ne nii itam nag Cheikh Issa Diène itam nag dund na ko moom sëriñ ngañ tàndine itam nag moo seex Issa Diène itam nag ñoom ñoo ko ànd ba bi Cheikh Issa Diène nag jaayanteeg sëriñ Touba Cheikhoul Khadim ba dil siwaat nag ci suuf soosu nag di jafe-jafe yooyu Cheikh Issa Diène nag doon dund moom nag Cheikh Issa Diène benn ràbb nag ak ñaari naar nag kum taxa damm nag sab gopp ci rëccu nag ngay mujj naar yooyu ñu doon wax nag seex Issa Diène sëriñ ngañ tànni na mi itam nag ci la bokk ba tax na nag bi Cheikh Issa Diène nag nekkee ci suuf soosu nag di kajoor nag ba sanc fa ab dëkk moom sëriñ ngañ tànni na itam nag sancoon na ab dëkk itam nag ci wetu seex Issa Diène muy fu ñuy wax nag daaru paam ginnaaw suuf soosu nag di kajoor ci suuf si nag di mbuu ci dëkk bii nag di xàbbaan Cheikh Issa Diène nag amoon na fa suufa moom it sëriñ ngañ tànni na nag amoon fa suuf sam fa amoon nag mi ngi nag ci wetu dëkk bii nag di lolli ginnaaw mbuur nag ci suuf soosu nag di xabbaan Cheikh Issa Diène itam nag ñëwaatoon na saalum ci dëkk bii nag di mbar sanc fa nag fu ñuy wax na fay nag ay suuf itam ñu mën caa ràññee nag fu ñuy wax naar ga man faa ràññee nag fu ñuy wax daaru marnaan daaru marnaan googu nag la wéy nekk ànd ak Cheikh Issa Diène nag mi mu toppoon ba ci atum feebar nag tërale ko fa ñu yóbbu ko nag ndànd nag mu génn àdduna saalum googu itam nag ba tey tey ci suuf si nag di ngin gi néew sëriñ ngañ tànn ne nag amoon na fa suufa amoon fa nag fu ñuy wax nag daaru jenn ñu gën koo xam nag ci ngàcc ba nëgën itam nag foofu itam lenn itam nag ci ak njabootam itam nag ña nga fa teel a jaayante googu mu teel a jaayanteeg Cheikh Issa Diène tax na nag soo delloo nag ci way yi Cheikh Moussa Ka nag di way mbooleem nag ñi ñu jaayanteeg sëriñ Touba Cheikhul Khadim moo xam ci aw sant moo xam nag ci aw xeet bi muy lim nag naar yi jaayanteeg sëriñ Touba Cheikhul Khadim wala naar teel a ñëw nag ci yoonu murid wi turu sëriñ ngañ tàndine nag ma nga ca ñu teewlu nag li ci cheikh Moussa Ka wax jaaraama mam jaaru ko am jaaraama yaa ko waral sa doo maray karaama déglul malim naa ñi kajoor defar na naar defar wolof moo jeexal cheikh ndonga joor cheikh ibra joor naam amar sëriñ bi may na leen foo ko sunu mar cheikh paate amar am na moodu amar mën na xalifa te faj na aw mar cheikh abdoulaye amar waxaat yi baaba cheikh jiri waadaan fataxal ab waaba sëriñ souleymane diagne sëriñ njabel diagne sëriñ bi may na leen foo ko lan laaj sëriñ mamar diagne balla diagne sëriñ diagne sëriñ bi Daouda Diagne Daouda Diagne Cheikh Bara Diagne na nañu Ngagne Tandine mbër mu ay gaañ yoroon na nag ay soxna moom sëriñ Ngagne Tandine soxna si mu njëkk a dëkkoon nag mooy soxna Astou Khaya mook soxna Astou Khaya nag am nañ ak njaboota wala am nañ nag benn bant muy soxna Faatu Ngagne Tandine yoraatoon na nag soxna suñuy wax soxna Faati Tandine mook soxna Faati Tandine itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Astou Pam Tandine sëriñ Sidi Mokhtar Tandine soxna Magat Tandine sëriñ Moodu Tandine soxna ak soxna ummi tàndine yoraatoon na nag soxna suñuy wax soxna faati njaay moom sëriñ ngañ tàndine mook soxna faati njaay tim nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee sëriñ ibrahima mbeng tàndine soxna saynabu tàndine sëriñ moodu tàndine soxna awa bey tàndine sëriñ abdu njaay tàndine na suñuy wax soxna ami jaañ mook soxna ami jaañ itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ ali tàndine ñu gën koo xam nag ci sëriñ alsey tàndine sëriñ jenn tàndine soxna nogay tàndine ak soxna caan tàndine yoraatoon na soxna suñuy wax soxna Khady Diagne moom sëriñ Ngagne Tandine mook soxna Khady Diagne itam nag am nañ benn bant muy sëriñ Mor Ndand Tandine na soxna suñu wax soxna Khady Nger mook soxna Khady Nger itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee soxna Biti Tandine sëriñ Baara Tandine Baye sëriñ Modou Tandine maneen sëriñ Baara Tandine ak sëriñ Omar Tandine yoraatoon na nag soxna suñu wax soxna Yaasin Amar mook soxna Yaasin Amar itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Alioune Tandine sëriñ Ma Diop Tandine sëriñ Mor Farika Tandine soxna Khady Tandine ak sëriñ Abdou Salam Tandine yoroon na soxna suñuy wax nag soxna ami sugu mook soxna ami sugu nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ soxna na soxna suñuy wax nag soxna Faati Sugu mook soxna Faati Sugu itim nag benn bant lañ am muy sëriñ Moustapha Tandine yoraatoon na soxna suñuy wax soxna Sukkay Joxumpa mook soxna Sukkay Joxumpa nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Caara Tandine soxna Gay Tandine ak soxna Say Tandine yoraatoon soxna suñuy wax soxna Xadili mook soxna Xadili itim nag am nañ ak njaboota tawata ñu mën caa ràññee na soxna faatu tàndine ak maneen soxna faatu tàndine moom sëriñ ngañ tàndine yoroon na soxna suñu wax na soxna mëtu àlla joxumpa mu soxna mëtu àlla joxumpa am nañu ak njaboota ñu mën caa ràññee nag sëriñ basiiru tàndine ak soxna njaaña tàndine yoraatoon na nag soxna suñuy wax soxna faatu mbay mook soxna faatu mbay nag am nañ ak njaboota ñu man caa ràññee nag sëriñ abdu sama tàndine ak soxna matu tàndine soxna yii nag la sëriñ ngañ tàndine dëkkoo woon njaboot yii nag la ci am woon nag ñoom ñooy ñan doom ji nag di soxna nogay tàndine bi mu matee dem kër sëriñ Ibba Jaañ nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Ibba Jaañ nag am nañ ak njaboota ñu mën caa ràññee nag sëriñ Njañ Jaañ sëriñ Paap Jaañ sëriñ Cheikh Jaañ sëriñ Abdu Jaañ soxna Alima Jaañ soxna Siré Jaañ soxna Ngóone Jaañ ak soxna Matu Jaañ doom ji nag soxna Matu tàndine bi mu matee dem kër sëriñ Abdu Jobbe Jaañ nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Abdu Jobbe Jaañ nag am nañ ak njaboota ñu mën caa ràññee nag soxna Bese Jaañ soxna Ayda Jaañ soxna Daba Jaañ sëriñ Ibba Jaañ sëriñ jaañ soxna matu jaañ ak sëriñ elaaji jaañ doom ji nag di soxna faati ngañ tàndine bi mu matee dem kër sëriñ abdourahmaan jaañ lañ ko jébbaloon mook sëriñ abdourahmaan jaañ nag benn bant lañ am muy sëriñ abdou jaañ doom ji nag di soxna màgget tàndine bi mu matee dem kër sëriñ ousmaan ndak lañ ko jébbaloon mook sëriñ ousmaan ndak am nañu ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ bàcc ndak sëriñ seex ndak sëriñ ibra ndak soxna faatu ndak ak sëriñ maam góor doom ji di soxna alimatu tàndine bi mu matee dem kër sëriñ basiiru tàndine nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Basiiru Tandine nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Alsey Tandine soxna Njaaya Tandine soxna Daba Tandine soxna Aji Tandine ak sëriñ Abdu Tandine doom ji nag di soxna Njaaña Tandine bi mu matee dem kër sëriñ Axmadu Sugu nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Axmadu Sugu nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Moussa Sugu soxna Faatu Sugu soxna Mareema Ture Sugu sëriñ Ahmed Sugu soxna Mareema Mbay Sugu soxna Bintu Sugu ak sëriñ Abdoulahi Sugu doom mujjee dem kër sëriñ daaru Touré nag lañ ko jébbaloon waaye mook sëriñ daaru Touré nag amuñu nag ak njaboota doom ji nag di soxna sëy na bu tàndine bi mu matee dem kër sëriñ Basiiru Touré nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Basiiru Touré nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Abdoulaye Touré soxna Faatu Touré soxna Assu Touré ak soxna Awa Touré doom ji nag di soxna Bitti Tàndine bi mu matee dem kër sëriñ Naar Jaañ nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Naar Jaañ nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Nguy Jaañ sëriñ Masayer Jaañ ak sëriñ Malik Jaaña doom ji di soxna Soora Tandine bi mu matee dem kër sëriñ sang jaañ nag moom sëriñ Souley jaañ nag lañ ko jéppaloon mook sëriñ sang jaañ nag amuñu nag ak njaboota ginnaaw bu soxna Soora nag jógee nag ci loxoy sëriñ sang jaañ kañ ko jébbalaatoon itim amu fa nag ak njaboota doom ji nag di soxna say Tandine bi mu matee dem kër sëriñ Ndonga Jëmbu ture nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Ndonga Jëmbu Touré nag am nañu ak njaboota ñu mën caa ràññee nag soxna Faatu Touré soxna Xadi Touré soxna Assu Touré sëriñ Taala Touré ak sëriñ Siidi Touré doom ji nag di soxna Issa Dieng nag lañ ko jébbaloon mook Cheikh Issa Dieng itam nag am nañ ak njaboota ñu mën caa ràññee nag soxna Khady Dieng ak Serigne Khadim Dieng ginnaaw bu soxna caara nag jógee ci loxoy Cheikh Issa Dieng lañ ko jébbal nag Serigne Sayer Diagne mook Serigne Sayer Diagne itam nag am nañ ak njaboota ñu mën caa ràññee nag Serigne Modou Diagne Serigne Ousmane Diagne ak soxna Kiné Diagne doom ji nag di soxna Assou Pam Tandine bi mu dem kër Serigne Mamor Touré nag lañ ko jébbaloon mook Serigne Mamor Touré nag am nañ ak njaboota ñu mën caa ràññee nag Serigne Mbaye Touré Serigne Modou Touré ak Serigne Yérim doom ji di soxna awa béy tàndine bi mu matee dem kër sëriñ mbay amar nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ mbay amar nag am nañu ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ mbàkke amar sëriñ abdu samat amar ginnaaw bu soxna awa béy nag jógee ci loxoy sëriñ mbay amar lañ ko jébbal nag sëriñ moodu sëy mook sëriñ moodu sëy nag benn bant lañ am muy soxna asta sëy doom ji nag di soxna faati tàndine bi mu matee dem kër sëriñ njaw mbay nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ njaw mbay nag am nañ ak njaboota mën cee ràññee soxna ndumbe mbay soxna ngoy mbay soxna ndooya mbay soxna maram mbay soxna nday mbay ak sëriñ muhammadu lamin baara mbay njaboot gii ñu leen dëgtal nag ñooy lenn nag ci sëti sëriñ ngañ tàndine yi moom sëriñ ngañ tàndine nag mu wéy ànd ak nag cheikh isaa jenn toppi nag ci ginnaawam ba tax na fépp foo xam ne ni nag seex isaa jenn itam nag dem na fa yóbbaale na fa nag sëriñ ngañ tàndine ba ni mu génnee àdduna nag ci loxoy cheikh isaa jenn mu nekki nag ku jaxasoog nag mag ñi moom sëriñ ngañ tàndine mbooleem tundu kajoor woowu nag mag ñi nga xam ne ni nag ñoom ñoo fa nekkoon daa jaxasoo woo nag moom woon nag Cheikh Issa Dieng itam nag dañoo wëlërante woon nag sëriñ Ngagne Tandine mu nekk nag ku jaxasoo woon nag mag ñi toppoon nag ci ginnaaw ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadiima ñu nag ba wax nañ ne itam nag maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina fan nag ak juróom mu nekkoon nag ku mën a waaraate nag ci ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadiim wala nag ku mënoon a waxtaan nag ci ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadiim ba Cheikh Rafal itam nag daana ko waxtaan am loo nag ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadiima mu nekki nag ku jaxasoog ma masamba jóob saam ndax sëriñ masamba jóob saam itam nag jàngal na ko moom itam nag daana gana ji nag sëriñ masamba jóob saam daa fa ànd ak magam nag sëriñ mustapha tàndine ba wax nañ na am na benn bis nag sëriñ masamba jóob saam nag daa gana si cheikh isaa jenn waaye ngan googu nag fekku fa nag cheikh isaa jenn sëriñ ngañ tàndine mii nag la fa fekkoon waaye na ko sëriñ ngañ tàndine nag teeroo teral ko nag ngir cheikh isaa jenn nag da koo yéemoon ba keroog nag bi sëriñ masamba jóob saam nag di tàggatoo mi ngi koy xamal ne su ma fi fekkoon nag Cheikh Issa Diène ngan gii nga ma defal gu ni toll nag du ma ko defal mu nekkoon nag ku jaxasoog Maam Moor Jaara magi makka ndax li Sëriñ Tubaa Seexul Xaddim nag waxoon ci Maam Moor Jaara ku mu gërëm nag nga am nag ñeenti pay yi moo taxoon itam nag ku fonkoon Maam Moor Jaara la ba daana ko liggéeyal ku fonkoon Maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru la ndax ko le rek Maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru nag ak Cheikh Issa Diène loolu itam nag Sëriñ Ngagne Tandine mii na xamoon na ko ba noonu itam nag ni la fonke woon nag Maam Ceerno sëriñ jéeri waa daan sugu la ndax ñoom kat ñoo bokkoon nag tundu kajoor woowu ba tax na itim nag relation bu yaatoo yaatoo yaatu nag amoon na ko sëriñ jéeri waa daan sugu daana ko seeti itim nag ndax ak kóllëre nag gu ñu séq noon itam nag ni la toppe woon nag ki mu joxoon boppam nag ngir sëriñ tubaa seexul xadiima muy seex isaa jenn seex isaa jenn itim nag yoroon na doomu sëriñ ngañ tàndine fob na itim nag sët bi njëkk a gis tudde ko nag sëriñ ngañ tàndine muy sëriñ naar jenn sëriñ ngañ tàndine itim nag tudde na lu mat ñaari yoon doom nag seex kenn itam nag daana wax sëriñ ngañ tàndine gërëm naa la nag ba fa ngërëm yam lépp loo xam ne daal joxuma la ko dama koo amul waaye lépp lu ma am itam nag bokk naa kook yow taxawu nag gooma taxawu yow sëriñ ngañ tàndine noonu itam ni la tudde seexul xadim doom moom sëriñ ngañ tàndine mu nekki nag ku jaxasoo ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xadima ba tax na nag lu takkoo takkoo takkoo takkoo takku seexul xadim nag defloo na ko ko lu takkoo takku itam nag mook seexul xadim itam nag séq nañ ko moom sëriñ ngañ tàndine seex si àndoon ak seex isaa jenn itam nag ni la amante woon ak kóllëre ñu ci bare bare bare bare na sëriñ ngañ tàndine nag tudde na leen doom ñoom itam nag ñu tudde ko doom sëriñ alsey tudde na sëriñ ngañ tàndine doom sëriñ Alioune Mbàkke bokkoon ci seex yi seex isaa jenn yi tudde na sëriñ ngañ tàndine doom sëriñ moor jenn bu daaru paam tudde na sëriñ ngañ tàndine doom dëkk bii sax nag di daaru paam te sëriñ moor jenn nag nekk fa sëriñ ngañ tàndine itam nag moo ko gor ba ci taawam bii ko jëkk a wuutu nag di sëriñ siidi tàndine ci dëkk boobu nag di daaru paam nag la feeñe jamono sëriñ ibrahima mbeng bokkoon ci seex yi seex isaa jenn yi doom sëriñ Mor Touré bokkoon itam nag ci seexi seex Isaa Jenn yi tudde na sëriñ Ngagne Tandine doom ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñu ko tudde doom mu wéy nag topp nag ci ginnaaw seex Isaa Jenn fépp foo xam ne nii nag seex Isaa Jenn itam nag dem na fa sëriñ Ngagne Tandine itam nag àndoon na fa ak moom nekk nag ab liggéey katam bokkoon nag ci jàmbaaram yi ba lépp loo xam ne nii daal ab taalibe nag dana ko defal nag ab sëriñam sëriñ Ngagne Tandine jaar na fa ak nag seex Isaa Jenn ci nag ci la sax ni mu génnee àdduna ci atum 1942 moom sëriñ nag mu am ay góor yàlla nag yu mu defar nag ba ñuy defaree ñu mën cee ràññee nag sëriñ Moodu Jaañ Joor ci dëkk bi nag di Njaañ Saalum sëriñ Jibril Mbeng ci dëkk bi nag di Téenoo nekk nag ci Kajoor sëriñ Baay Sëy nekk nag ca naar ga ci suuf si nag di Mbar ci Saalum ak ñeneen nag ñeneen ni góor yàlla nag yu mu defar nag ba ñuy defaraatee sëriñ Ngañ Tàndine nag soo delloo ci way yii ko sëriñ Abdoulahi Tàndine moom sëriñ Masamba Tàndine moom sëriñ Moodu Tàndine bu sëriñ Ngañ Tàndine defal mi ngi xamal nag way moom sëriñ Abdoulahi sukkandiku ci kàddug nag sëriñ Siidi Moroon bi bokkoon nag ci jàmbaari sëriñ ngañ Tandine yi ginnaaw bu mu ko laajee nag kan mooy sëriñ Ngagne Tandine mu di ko ko xamal ci la jëlee wax jooju nag def ko nag ay way soo delloo nag ci wayi sëriñ Abdoulaye Tandine yi ginnaaw bu mu nuyoo ni lislaam baaxoo nag di nuyoo santitim nag maamam jooju nag di sëriñ ngañ Tandine mi ngi wax ne nag yow sëriñ Ngagne Tandine yàlla na la yàlla fay ngën gi fay yow sariha jëmu la xaqiha jëmu la yow dangaa boole sariha la yàlla fay nag bu doon néeg nag wala keno bokk nga nag ca keno nag yi te néeg bi yow mi làq nag ngërëmul yàlla akub yonentam nag ngën gi mbindeef salallaahu taala alayhi wa sallam ak sëriñ ñëpp sëriñ si nag muy seexul xadiima mbooleem gaa yu baax yi itam nag làq nga nag seen ngërëm bokkoon na ca nag maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul na cheikh Isaa Jenn ak maam Moor Jaara nag magi makk yow yaay ki gindiku réer yow yaay boroom njub gi yow yaa bokk nag ci askan wu sell yaay kuñ na la yàlla fay yow sëriñ ngañ tàndine ñu teewlu nag way yii ko sëriñ abdoulaye tàndine moom sëriñ masamba tàndine moom sëriñ moodu tàndine nag bu sëriñ ngañ tàndine nag defaloon nag maamam ci kàllaamay arab jazaaka ya cheikh daaru ngañ xayral jaza wal takfina bikal aza wa lawma allahu rabbuna mujibu daawati bijaahi ahmada wa man taqaddama axasta ya wasilati kulla almaram min rabbina alkarimi xaaliqi alsama wa fuqta bi rijaali ya mawlaaya ala عبادة لرب كرما وأنت جامع بين الشريعة مع الحقيقة المنارة كما قلت بأن ديننا الإسلام لو كان بيتا بعماد قد سما وعمدة التي أنا بها أبت ولا هوى مني ولن ينهدما فزت بما غاب عن الرجال في خدمة النساء عيسى بن مريم وعزت بردا من الشيوخ الذين عاثروا بك وقدما منها ردا شيخ الشيوخ أحمد غير القدام المسلم المصطفى والكرما وشيخنا إبراهيم النبراسي ملقب بفال باب عصما وشيخنا إبراهيم بن فاتي وغيرهم من الكرام القدما جزاك أن الله يا شيخ دارنجن والتقنا به أذى من كل ما ورضي الله عن واسطتي وشيخي أبي المختار سيدي السبق والقمم وذاك نجل سيدي المختار الكرم باب السعادة بالأخلاق والقيم الكاظم الغيث والعافي لسي غلة والهادي سا ضلال كالنور في السلم مدينة العلم مملوء جوانبها من الرواية والدراية العلم أثم عرنين من عيال شي شرف خيار بني الحوالي دين الإسلام العابد الناسك الماجد الرسيد الصالح الحميد ذو الجاه والكرم moom Serigne Ngagne tànn nag bari woon na nag ay tur nag yuñ koy woowee ci biir tur yuñ ko doon wooyee nag ñu mën cee ràññee nag daaru ngañ tàndine sëriñ naar tàndine sëriñ daaru tàndine ak sëriñ ngañ tàndine sëriñ ngañ tàndine nag mi ngi génn àdduna nag ci feebar nag bu ko tëral ci suuf soosu nag di saalum ci dëkk boobu nag mu goroon nag nekkoon fa di daaru mannaan nekk nag ci wetu dëkk bii nag di njenni lagan goog seex isaa jenn ci dëkk boobu nag la ko feebar tëralee ñu jëlee ko foofu nag yóbbu ko nag ndànd moom sëriñ ngañ tàndine nag mu daal di génn nag àdduna ci bisub àllarba fukki fan ak juróom ci weeru diggu tëbëski ci atum atum 1361 nag ci gàddaay gi àllarba fukki fan ak juróom ci weeru diggu tabaski ci atum 1361 nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy mercredi 24 novembre ci atum 1942 mercredi 24 novembre 1942 ñu yëgal ko nag ki mu joxoon boppam di Cheikh Issa Diène seex Issa Diène itam nag moo ko jullee sàkku itam nag ñu yóbbu ko nag ci dëkk bi nag di ndànd nag denc ko fa soo delloo nag ci way yi sëriñ maam Ngor Ndaak nag way jàmbaari Cheikh Issa jenn ji nag di sëriñ Ngañ Tandine ngi ñuy wax nag taxawaay nag bu mu amoon nag ci ron seex Issa Diène njàmbaarte nag gu mu wane ba tax na ñëpp nag naw nag ku sant nag tàndine nu mu siggeele nag suufus ndànd soosu bëgg lu baax nag gu mu bëggoon nag lu baax teel a jaayante nag gu mu teel a jaayante nag lu takkoo takkoo takku daal la sëriñ maam góor ndaag mii di ñu xamal nag ci jàmbaari Seexul Xaddiim jii nag di sëriñ ngañ tàndine ñu lu ko bismil yi tey ma woy sant sëriñ ngañ tàndine tey jàmbaar ju mag jafiiru tey fa liggéey bu rëy ba tey ku nekk jóg di roy ñëpp a ngi sàkku seeka roy ñëpp ay siyaar si tànn ne liggéey bu rëy ba mu jëfoon ca kër boroom njenne ba woon mooy li ñu fay doomam yi kon bu askanoo ci tàndine seex daaru ngañ yaa di kamaal maam seex rafaal noona rijaal yetiita kon baana ca daal say di ahlu tàndine jox naa la man sama lisaan ak sama xol bi muy janaan sa géej gu rëy gi naa ca naan noor naa ci ahlu tàndine xaqiqatul munawwara sariatul mutahara ji waaye sell la lañ tàndine li ko dale nag ci atum 1942 ba ci atum 1971 sëriñ Sidi Muxtaar Tàndine mooy nag ab xalifaam nag bu njëkk ñaareelu xalifa sëriñ Ngañ Tàndine ci atum 1971 la ba ci atum 1999 di sëriñ Ibrahima Mbeng Tàndine ñetteelu xalifa sëriñ Ngañ Tàndine ci atum 1999 la ba ci atum 2002 di sëriñ Ali Tàndine ñeenteelu xalifa sëriñ Ngañ Tàndine li ko dale nag ci atum 2002 nag la ba nëgëni di sëriñ Ibrahima Diop Tandine moo fi nekk nag ñu koy ñaanal nag suñu borom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaay waajuram boobu ak mbooleem nag ñu mu séqal nag sëriñ Ngagne Tandine sëriñ Ngagne Tandine nag am na bis nag buñ koy fàttaliku nag ci liñ tudde ak màggal njaboot gi nag dajaloo nañ di def nag at mu jot nag ñu wutal nag seen waajur wi nag ak màggal màggal gi nag amul bis fixe nag ci at mi saa buñ ko jekkoo nag lañ koy màggalal moom jàmbaari Cheikh Issa Diène ji ci dëkk mu tëdd nag di xalifaam nag di sëriñ Ibrahima Mbeng Tandine moo ko sosoon nag boobaak léegi nag ñi ngi koy wéyal ci dëkk boobu nag di ndànd ndànd nag dëkku baykat la njaboot gi itam nag di def saa bu cooroon bi taxawee itam ñu jàpp benn bis nag bu ñuy fàttaliku nag sëriñ Ngañ Tandine màggal gi itam nag at mu jot nag lay am ci dëkk boobu mu tëdd nag di ndànd lii nag mooy benn bis nag bu ñuy fàttaliku nag sëriñ Ngañ Tandine ñu ñaan ca jàmbaari Cheikh Issa jenn ja sëriñ Ngañ Tandine yàlla nañu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram itam nag réew mi itam nag yàlla na ko suñ borom saafara ci dara jay cheikhul xadim amin